dal leen ak jàmm kañu doon xaar rawatina candidat yi doon ko xaar ngir mu firi leen wala mu lett leen ci ñaata la ñu war a joxe ngir bokk ci élection locale yi ñuy jëm Walf Quotidien mujjee naa leeralal candidat yi moom jaru ngi ñu denk kaaraange bi réew mi ku ci bëgg a dagaan baatu askan wi moo xam ci municipalité wala ci département faw nga génne lu tolloog fukki million ak juróom ay kàddoom la ñu fekk ci biir yéen kaabi du Sud Quotidien yéen kaabi ne arbitre gàngoog sifle ci ñaari élection di élection municipale ak candidat faw nga joxe lu toll ci fukki million ak juróom opposition bi rawatina non aligné yi daal di fëgg ci taabal ji gis ne fukki million ak juróom diis na lool ci ndoddu askan wi rawatina candidat yi Déthié Faye nguur gi nu mu ko neexee la doxale yéenam weesuwul bëgg a gàllankoor ci biir yéen a kaabi di le bi fippu na ñaawlu nañu ni nguur gi doxalee ci caution gi candidat yi a joxe te mu toll ci 15 millions Saliou bu FNR gis ne am gi Abass Fall bu Pastef ci Ndakaaru nasaxal opposition bi waaye duñ ko seetaan Alioune Sy bokk ci parti acte ne ni nguur gi doxalee ci bile caution du lenn lu dul bëgg sas candidat yi ñu dem lebi wala sàcc ay kàddoom ci le témoin député maire bu APR di wuri Baylo jàlloo daal di rafetlu dogal gi yoon gi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi jël natt ak xayma caution bi te mu toll ci fukki million ak juróom wuri Baylo jàlloo gis ne ci bile caution dañ ci mun a segg eh, candidat yu bëri ndax gox boo dem dégg kuy naan mën a mën a tey carte gi leer na daañu xam kan moo mun ak kan moo munut yéen a critique am ci taxaw seetlu ne ci segg candidat yi lañ jëm ndax ñu bari ci ñoom du ñu matal fukki million ak juróom ya ñu mun a joxe ngir mun a dagaan baatu askan wi ci seen gox yéen kaabi réew mi quotidien ne lu toll ci fanweeri million ci élection locale yi ñuy jëm yéen kaabi gis ne beneen njaay doole ngi ni moom la nguur gi amal jëmale ko ci askan wi rawatina ci ku jéeg politique bi yéen kaabi di source a xëy wone yërmandeem ci candidat yi bëgg a dagaan baatu askan wi te see doole neew lool seen am am demeewul noonu ñooñee nguur gi sóoraalewu leen benn yoon gannaaw fukki million ak juróom yamu sas candidat yi bokk ci élection yi Cheikh Sarr bu Benno Bokk Yaakaar gis ne la jawriñ gi ñu denk wàllu kaaraange biir réew mi di Félix Antoine Diome la mu def jaadu na mu njaay Cissé bu ONG 3D daanaka dafa bëgg a salfaañe démocratie bi jàpp ne bile caution toll ci fukki million ak juróom dafa jaaduwul dafa jaarul ci yoon maanaam ñi am doole ak ñi ko mën ñoom lañ ca beral loxo fàtte ña ca des yéen a kaabi di Dakar Times ne ci Sénégal gi ñu ne démocratie amatu fi xañ nañ ko askan wi rawatina ku jéeg politique bi ndax fu réew mi toll ci wàllu koom bu ñu demee bay sas candidat yi lu toll ci fukki million ak juróom yéen neexul waaye nguur gi la ko neex moom la def bu ñu sukkandikoo ci opposition bi mi doon xaar lu bi ay kàddoom ci enquête gis ne yile koppar jaaduwul ndax bari waayam direct news ne ci élection locale yi ñuy jëm yu bari dañ ci dagaan baatu askan wi bu dee ca commune bu Golf Sud Lat Diop daal di fa fësal candidature am waa Grand Place ne xëccoo nar naa tar lool ca mairie bu Rufisque candidat ya kenn ku nekk di bàkku ne mooma Matar Ndoy daal di salfaañe toxalinu jawriñ gi di Omar Gueye ay kàddoom ci biir yéene kaabit waa Grand Place Matar Ndoy ne yaakaaru Rufisque puisque du kenn ku dul Ismaïla Madior Fall yéen a kaabi di las ne te moo ne de candidat yi tàmbale nañoo yëglu waaye ba tey askan wi yëglooguñu ci mbind mi mu ñeel liste électorale yi lim nga demeegul noonu boo demee ca Saint-Louis Ziguinchor ak Fatick ña demagum ca commission yañ fa samp lim nga néew na lool yéen a kaabi di l'info waxtaan ak Thierno Bocoum njiital agir jot naa xëpp suuf ci cere yi maanaam coalition giñ fi tàmbale jëmmal te Khalifa Sall ak Ousmane Sonko Karim Wade ne ca biir Thierno Bocoum ne bile a bi ci ay kàddoom ci l'info Thierno Bocoum joxe xalaatam ci mbënd mi sonal askan wi booba léegi ne tàyyi nañu ci at mu jot nguur gi di ci dugal ay milliards te saafara du am Thierno Bocoum santaane ab commission d'enquête parlementaire ngir saytu milliards yi fi nguur gi dugal booba léegi ci mbënd mi yéena kaabi di tribune ne ana fu mu féete lu toll ci juróom-ñaari téeméeri milliards ak juróom-ñett fukk ak ñaar di koppar gi nguur gi xayma lu ko dalee 2012 ba tey at mu jot mu jëmmal plan Orsec te ba tey munta génne askan wi ci biir ndox mi ay kàddoom ci tribune Bougane Gueye Dany gis ne nguurug Macky Sall mi le dafa laaj daal di ñaawlu anam yi nguur gi doxalee ci panneau publicitaire yamu jot a siwal ci Ndakaar ak feneen ak feneen ngir soññu askan wi ñu dem bindu ji waaye dogal jiib na daal di aaye yooyu le panneau publicitaire ci saasi Bougane Gueye Dany ne mënul munul bawalu yàqu yewa ne jaru ngi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi di Antoine Félix Diome munut lañ koy xaare buñ ko falee ba tey defu ca leen yéene kaabi di l'évidence gis ne Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp wéet nag jafe-jafeem démb ci convocation amul kenn ci opposition bi kako dar yéene kaabi am ci jaaxle lool ci ni opposition bi doxalee jëm ci Bougane Gueye Dany mi wéy di ñaawlu doxalinu Antoine Félix Diome yéen kaabi di la tey ma xamal leen kan mooy Antoine Félix joom ne gannaaw buñ ko falee ba tey mu doon jawri gi ñu denk wàllu kaaraange bi réew mi ba ba tey wone na ne munut gisoon nañ ko fi yàggut ca Touba mu fab ab saak gu def xaalis génnee ko ca mbooloo ma jëmoon ci jàppale ñu loru woon ci làkkub marché Ocass ca Touba la mandaane tey ñu ngi jublu ci élection locale waaye Antoine Félix Diome nam ca doxalee rafetagul yéen ba tey mun ta indi saafara ci immigration clandestine tey ji la gàlluloo ci gën a bëri ngir wutali bitim réew yéen kaabi di Les Échos xëy déggal ko ne lu toll ci téeméeri doomi aadama ak fukk ak juróom-ñaar ci ñooñee am na ci ñaar fukki xale ak ñetti jigéen yoo xamante ne teg nañ leen loxo ca Espagne yenn kaabi ne gaal la ñu jëlee ca Saint-Louis wutali Espagne ci biir gaal googu le am na ci ay sénégalais ak ay malien ba ci ay gambien ci biir yéen kaabi di L'Exclusif Aminata Sakho bu mouvement Karim président yekk lu mel ni xeme président Macky amina Aminata Sakho daal di méngale njiitu mi Macky Sall ak ne kiif kiif ay kàddoom ci L'Exclusif moom Aminata Sakho ne ñaar géej gi ñaar te loolee amut njiitu réew mi Macky Sall moo fi waxoon ne saay bu ñaari mandat lay am tey mu ngi bëgg a soobu ci ñetteelu mandat ci fàttali njiitu réew moo fi waxoon ne saay bu faloo am lu toll ci ñaar fukki ministre ak juróom lay doon tey ñu ngi ci ñeen fukki ministre ak lu teg Aminata Sakho ne tey bi la doxalinu njiitu lu ko wutalee kunkande yéene kaa ci jamono ji jëlee nañ ko fa yóbbu ko ca ñu i ndax Hissène Habré ma nga urgence gannaaw bu mu amee coronavirus génne kaabili stade ne am na lu toll ci juróom fukki bi yamu dugal foofe ca Liverpool gamu ne moom Sadio Mané waaye ci yooyu la bi yéene kaa xëy tànn juróom ya ca gën a rafet anakum ñu tànnal tey ci mbër yi bu ñu sukkandikoo ci yéene kaa di suñu làmb xëy fësal Gris Bordeaux Tigre de Fass ne ku yëngu ci bu muy doon xale waaye ku fuqale la ci wàllu lekk rawatina cere du ko bokk ak Fass bordo Bordeaux may laaj kañ lay doon roi des arènes